mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen tey nag gis ngeen ki ñu toogal wulli la ñu toogal l'international laa ko tuddee ndax li ko waral mooy àddina bi yépp koy suivre à travers le monde wala boog à travers internet bi ak tele yeeg fu ne tey nag ñu fekk ko kër xaritam doomu ndeyam Saliou Khoulé mi nga xam ne nii dama naan c'est le meilleur parmi les meilleurs ci wàllum animation ci rajo bi ndax loolu yàlla def na ko ñu fekk ko këram mu toog moom wulli kër Saliou Khoulé lañ ko fekk mooy wul daa jóge ci loo xam ne nii dafa jur coow ci àddina bi diggante ak liiru jaan liiru yóbbu ndam la yóbbu drapeau ba di ko feete toog biir géejawaay wulli moom indiwut ndam wulli maa ngi lay nuyu di la siyaar asalaamaaleykum Babacar maa ngi lay sant di gërëm di sant sama borom yàlla parce que damay sant yàlla Babacar xam nga li tax may damay sant yàlla suñu borom damay ko sant yàlla bu baax parce que parce que ànd na ak maanaam moom mu ngi jàppale te yàlla na ko yokk di sant sama ñaari waajur aussi parce ñoom aussi ñu ngi may ñaanal bu baax di sant sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Mbakke sant sëñ Abdou Karim Mbakke di sant maam kenn Ibrahim borom daaru muxti borom sikoori di sant sëñ Modou Kara parce que sëñ Modou Kara usi Kara Mbooj moo nu boloon ci bi di di di gërëm aussi Kara Mbooj international euh, bu ngeen Kara Mbooj international doo euh, séeri Faatu Mbay mm, rakku naar mbooj di gërëm daas ministre des sports muy Mamadou Ngom ñaa seedi aw kan Ngom ñaa dafa baax naa bu rek moom ak gaaw Mamadou Ngom Ngom non awa moom seetaan awa kan kii andi Babacar awa moo gën a gaaw ci comme seen patron rek ni mu gaawee. Calis ah Calis moom maa ngi koy siyaar boobu waa Géejawaay la mais Calis Géejawaay man dañ maa jaaxal. Géejawaay ni mu bëri kilifa yu am jom ak di dignité. Géejawaay mais kii na fa bëgg ko yàq na may monument bi mais du ñu ko gën a Géejawaay. <laughs> waaye nit juddoo ci dëkk fa màggee ko fay génne. waaye jaan mii astafurlah magatam jaan dëkk géejawaay waaw géejawaay ni mu bëree personnalité ki borom jom ak borom dignité mais magatam jaan mi amut ci dignité dara dara lambal la fi nekke koo wax mu ne seytaane nga géejawaay mari gàkku professionnel Aziz Ndiaye jéey bay joob daam joob ngor Aline Sall ba dëkku fa wax dëgg non baal ah, ah. sekk Diaw Guédiawaye dafa bari ñu am dignité bala Gaye ak ki ki douanier bi Pape Mama bala Gaye dën nag vraiment moom lay waxat tey di ko lancé appel personnellement moom gaynde la ci loolu lañ ko xam rakkam di gaynde muy Sa Thiès mais mu ngi bëgg a yablu boppam ci Sénégal mm. parce que bu di ànd ak nit koo xam ne vraiment du gaynde gaynde day ànd gaynde mais Lirou Diane muus la muy ànd gaynde gaynde doon ak muus waay. léegi yaa ne liiru muus la waaye nag la ngeen jëlee bi moom moo am résultat bi ndax moo la gagné mais dama lay laaj dama bëgg nga wax sénégalais yi bi lu ca xew ba Lirou mujj la gagné. merci Babacar vraiment damay aussi Babacar di gërëm Sénégal yi yëpp parce que ñëpp am ma ñëpp la affaire bi naqari Babacar maa ngi doog a xam nag fan la tollu ci Sénégal yi amatuma duwaa def erreur ñoo tax may wan a jom même même même bu may dee damay wan a jom Babacar foo mës a gisee arbitre soufflé ma daq ko liu jaan ni mu dawee sax moo ñaaw du arrière daw waxat mais ñu bari nañ ma dama war a taxaw mais kuy taxaw xam nga ni muy dawee mënumaa sabate taxaw c'est que arbitre aussi loolu seen faute la bu doon Dakar danuy dox suñu diggante mais abit bi dañuy bay ba nu gën saaku yi sax dog ni pirit abitu Gàmbi dañuy bay ma dàq ko ba mu gën ci saaku yi mu ne pirit te buy naan pirit day nekk fu sore aussi doo ko dégg maanaam suuf léegi doo ci jot suuf léegi doo ci jot su boppam ba pare ñoom dañuy yéex a intervenir waa Babacar ku gën ñetti yoon trisé ñetteel bi moom moom dóor ba pare daanu ne mootuma bëre waaw Babacar ku dem ba ne mënatuma man mii nga xam ne mën naa mais na ma jox victoire bi tëdd na fa dix minutes loolu Gambie képp la am ci règlement Gambie képp ngay tëdd liiru tëdd na dix minutes dix minutes teg na ko ci géew bi ne mootuma bere beneen abit bi abit yi ñett lañu ñett beneen abit bi nee na beneen abit central bi woo ko ñetti yoon bu ñëwut wut nga jox wuli victoire bi arbitre central bi bañ arbitre central ne dina ceel yëpp la femme mu woo ko eh xaw ma diw xama sant yooyu woo ñetti yoon bu ñëw nga jox bi wuli victoire bi xool mu ne jël paamu woo ko ki nga xam ne mooy temps bi CNC bu Gambie ki yëpp temps bi ne ko may ko trois minutes du doon déglu bu baax la ma non may ko trois minutes bu dee mu suba tey nga jox wuli victoire mu ne nii waaye waa abib bi moom moo soxor bu dee bës boos bi ma yàlla may la ma soxoree mun ci tus nag waaw parce que day am ñoo xam ne Babacar boo amee tur xew macha allah dañ lay soxore hmm. loolu la ma soxore mais habit bi fa dafa soxor man ma mais est ce su est ce que du liiru dafa indi woon stratégie parce que des fois lamb tamit stratégie am ci arrière dem gauche dem droite pour jéem a gagné sa adversaire naq ko non moom stratégie mooy ni dafaa gay di doon def dem di di wër loolu loolu mooy stratégie mais stratégie dafaa gay doon def mooy stratégie waaw loolu moom loolu ba léegi dafaa gay jéggiwul saako day wër di wër di wër di wër mais liiru day jéggi ba cay barrière ya troisième bi mu dóor ma tëdd mais dóor na tëdd ne mootuma ñëw billaahi wala gabi képp laa bu doon Dakar nu jox ma victoire bu yegg Babacar. mais est-ce que dóor ba tëdd est-ce que du dóor ba mu la bëggoon dóor moo porté moom mooy mu far tëdd. waaw tëdd na ne mënatuma waaw Babacar ku mënul doo def ki mën victoire bi am na arbitre bu ne Dakar doon du ma wax mooy kan. kilifa ci abit bi dafa wax dem sama ministère Maxime Bergal ne ko al ne ko combat gu gu gu gu gu gu wëlu bi ak Lirou Diane moom a gën a naqar ci combat yi parce que mënoo maa gis Lirou Diane di tricher tricher tri série amul sax ci football ak fépp tricher yi nga jox ko victoire bu benn abit bu mag la fi yéen nag billaay walaay abit bu mag mu ne man loolu dafa ma métti mënuma gis wuli di ko dàq muy daw normal di jig saaku yi loolu dañ ko te Dakar ba pare nga tëdd dix minutes tëdd jaaxaan ma koy xaar mu ñëw au lieu nu jox ko avertissement man mi leen jox avertissement mais est bi mu demee ci biti fekk ko tamit di ko est-ce que dóor ci biti yoon la non man gaa yi ñu ngi gaa yi noo xamut man dañu yoon laa ko dóor ci biti benn yoon première bi laa ko doo ci biti man dama fen deuxième bi dóoruma ko noo ñëwaat troisième bi moom moo ma dóor ba pare tëdd parce hmm. que sëñ Tuubaa Mbakke moom moo ma dóor tëdd tiriseri abit bi xaar ba mu ñëw mu awal tiri ma man ba pare nunu pare nga ma ne pare naa mu liiru pare nga liiru ne pare naa mu ne si si mu ne pare ma doo liiru mu jàpp sama loxo ma respecté ko mu tas combat bi yokk victoire mais c'est grave ça. c'est grave mais nag Sénégal yi duñu ay dof ñëpp ay yor seeni bët di xool ñëpp la affaire naqari tout le monde. yow da ngaa jàpp ne amul victoire. non Xadijatu Sow mi ñu tuddee woon lamb dafa wax tey woon na ma mu ne ma dinaa wax jamaïcain mu defar beneen drapeau. ma jox la ko parce que man sama drapeau bëgg naa ko am jom jël ko. waaw liiru kay ñàkkul jom nag wuli wala. li mu wane lan la. déet da nax ba daan la rek. tappale te avant combat bi lambal na ci réew mi mépp. lambal mooy lan yow yaa ngi doon fecc walla eh, foog na lambalay àddina ak ku ñu jóg mu ne saytaane nga ku ré yow mi ne nga. man moom du ma saytaane. même bu saytaane. Lamine defe naa du saytaane. Lamine bu baax la. Lamine booy baal. sama sama xarit. loolu ma naqare woon ma ne kii dama koy dóor boo mu ne ñaar boo ku mu dëggati ba seytaane mu daw. mu koo xam ne seytaane ba pare dama gën a ak fi réew nii tey de décembre bi nga war a kaf diree ngay tey tey di ñappaaxu. waaw loolu est-ce que du fecc rek dagañ. dagañ ëpp na dagañ tey tey ak fi réew nii. maanaam tey tey baaxut ci réew mi. tey tey réew at maa ngi jeex nga wara a nekk réglé di ñappaaxu tey tey tey tey moo tax man ko dinaa la dóor ba dootoo tey tey. ba dootoo tey tey jéem ñu wetu ko mais combat bi dafa am leneen lu ñu ci gis comme coow yaa ngi dégg dig nañ ci turu Balla Gaye 2 ak Modou Lo yaa ngi dégg ay waa kër Modou Lo ñu ne ñoo jox wulli gàllaaj liiru sax wax na ne. Modou Lo jox na la ay bagages ak yu mel ne kii noonu Balla gay 2 tamit lan mu andi ñaar ñooñu seen tur ci combat bu mu am coow. liiru moom mooy saytaane parce que day jaxase barke Mouhamad Rasulaay Modou Lo jox ma benn benn benn galaaj Papis jox ma benn galaaj euh, Balla Gaye 2 sama xarit la. Hmm. c'est que liiru moo doon jaxase man ba ba Balla Gaye def naa lu kenn mësu def ma am combat ak liiru jaan liiru liiru jaan di géwelam grand frère lam doon ne ma waaw ah, waaye géwél baax nag <laughs> mooy bu géwélam xam nga aussi nit ku ne sa géwél nit ku ne am géwél moo koy nangul man bala ngay am doom ngente ma bay sama ité yëpp dem ca kon kooku sama xarit la bala ngay sama xarit la saa Thiès benn moom mais sama xarit la fu ma ko fekk dama ko nekk jox ma ba bala ngay dee sama xarit la ku baax la mais damay comprendre ne géwélam lay jàppale parce que nit kaay nag géwél dafa fort <laughs> Macky Macky Sall a ngi nii jëlab géwélam def ko député ban géwélam Farba Ngom dama ci ànd moom géwélam lay porté mais sama xarit la mais Balla moom Balla moom li ma wax ne na liiru moo ko yar ca école ba muy doon xale ku ko bëgg laal mu def liiru défendre ko Balla moom daa jàpp ne liiru magam ju ko jege la joo xam ne da koo yéene lépp moo tax mu koy jàpp la xanaa. waaw ku yar bala ngay nag waaw nag di di lambal rek abit ne pir ngay waa kii jotul mu nopp nag bay lam ji bay waxam di rëy man liiru jaan pour man bu jógee Gambie dootul wax hmm. waaye nekk yoo teel a daxawa waaye kii xanaa ku ko rëy la bëgg mu noppi. mais ndam la fa jëlee wuli. Babacar man barke sëñ Baba liy jaan li ma ko def bu doon moom moo ko def. bu ma joxe ndam xam nga man séeréer ah, damay jëlaat drapeau bi ci ñëpp ne ko am. Hmm. yaa am na doom ami ñu koy doomu daw ba pare <laughs> li nga yow ba yow kii nit yow kii nit la yow li mu wax fi ne li mu wax ren lépp ci réew mi na bàyyi moom Modou Lo Modou Lo def ko dara billaahi Modou Lo bu ma jàppale woon dama koy rëy sax kon Modou Lo jàppale wu ma Papis sama xarit la man lam ji ñëpp sama xarit la ñu Modou sama xarit la Papis sama xarit la ba Balla Gaye 2 sama xarit la même Ama Bali sama xarit la waa Pikine Jules Badiane sama xarit la. si Badiane si Badiane bu ma zeng doom day en balde. Adja may may may Fall. Pikine dañu may supporter. Guédiawaye ñëpp may supporter daaw de sekkin jawin. passer aussi. ñëpp ñoom père Ba. ñëpp may supporter. Modou Lo sama xarit la mais Papis mooy sama xarit. combat bi jàpp ci may may wax ñëpp ne papi jàpp ci combat bi mais dig na bu ci géew bi consommé xam nga lii moo ragal papi di ma xaw ma nepp ko dig ne ma wul doo <laughs> mu daanu muy tit di pat pati la man maa papi ñoo rek nepp ko parce que ragal la ragal boo xam ne. waaye donc ko kon ba ba yut ku la ko nappal. waaw ñu naa ko mais dama xam tapet tam tapet tam ni mu ragal rek xam nga nit. Euh. xaj buy mat du baw lii ni mu bëree wax loolu la tapete. est-ce que léerub ragal la. man kër laa xam ne waaye waaye mosuma gis li ñalli ñalli ñalli bëri doo doo nit sa góor ak moroom moo tax saa tees ko naaw dana pirit ma attaqué mun na res billaahi moo dama fonk parce que dafa day gaynde barke sëñ Bamba bu doon saa tees du même bu doon Balla Gaye du arrière ba Balla Gaye 2 nag booy ànd ak nit vraiment ne la jokk sa jikko wala mu bay géej waay ay gaynde fa dëkkuwaay waay dëkk yi mooy Pikine géej waay kenn waru fa dëkk ragal kenn waru fa dëkk ñàkk jom Pikine ak géej waay maanaam dëkk yëpp sax quoi mais ñoom ñaar dinañ koy bakke quoi parce que jom dafa bari fit bari fa ngor bari fa képp ku fa dekk rek surtout yow nga ne yaay monument Géejawaay mu monument bi daan naa ko bu yàgg. déedéet waaye monument bu jàmbur. monument bu ragal nu nu defati. baadu fils bala maa koy nuyu. fils de bala mbër. da koo mere. ah wuli mbaa jaxase woo ay nit. fils de bala dëkk waay mu ragal waa Géejawaay ñoo woon ne ma kii dañu koy gën a Géejawaay dégg naa léegi. su awee géej waaye booy daa ko wuli rek saaga na bay booy muy saaga. waa léegi combat ba jeex na léegi yow pare nga pour may pour ngeen bëriwaat. ci mu taxaw de. maanaam bi yoon kon su ma su ma la déggee booy signé da ngay signé day da ngay kenn du arrière. day taxaw bu taxaw moom ma doo ko ba mu dee. yéen te dee nag. ray bi wóorut bëreel rek ngeen yem. daa ko doo ba mu gaañu. loolu ba la danaa ko doo ba mu ba mu gaañu ara que man Saliou Khoule li ma li ma li ma li ma jaaxal ci bi mooy Saliou Khoule ah, toogal nii toogal nii parce que li ma jaaxal ci bi Saliou mooy wulli temps yi macha allah yàlla def na dafa xew mais yow li ma lay sa impression ci lu gàtt combat Gambie bi noo ko noo gisee sa xarit bi wulli ak sa xaritu xarit bële wala sa magi xarit bële di liiru jaan Babacar ngi jégalu sax damaa xaw a damaa xool soj maa ngi tub bu baax euh, di nuyu waa waa Leewtoo TV di la nuyu Babacar di nuyu sama xarit euh, Wulli di nuyu Liiru Jaan mais nag euh, combat bi boo demee sax moom ma tooy nii ndax dañ cee sonn moom. yaa ngi doon jàppale sa ji. dañ cee entraîné ba tooy. waaw ba tooy léegi nag liiru moom war woon yàq làmb ji war woon daw. pour yow ko daa daw. Hmm. kay lii kañ moom sama xarit la waaye moom làmb ji moom daa daw. pare nga yow boo gis comme yaay mënaat si kii sax di conseil am maanaam yaay conseil am est-ce que pare ngeen pour tey bu ko promoteur bëggaatee wala bu ko jamaïcain bëggaatee fii Sénégal ngeen bëre ko parce que jamaïcain am na làmb ju mu tëgg fii. jamaïcain bu dina fay lu bari. nañu jox xaalis. Hmm. mbaa bu ko mënul tëgg rek keneen tëgg ko. Hmm. waaw bu ko rek keneen tëgg ko. mais pare ngeen ngir ngir combat fii. coow du jib ci moom la des mais nag Omar rek laa xamul nu ma koy def man Balla Gaye 2 moom mooy sama xarit. man làmb ji moom benn xarit laa ci am na bëtuwuma muy Omar Balla Gaye moom laa ciy seet daal moo tax ma ne wulli na wàññi sax wulli daa wàññi keroog de hmm. waaw da doon lekk. mais sa digganteeg wulli. <laughs> kii moom sama lépp la kii moom sama xarit la sama lépp la léegi sax animateur la def naa ko animateur sama partenaire la <laughs> wulli sama waay la. kontaan ci yow sëñ fii la pay aba <laughs> dundal. wulli léegi nag dañuy tëj affaire bi mais du mën a ñàkk faw mën nayu aas VIP sop waaw dal yi ma jox maa ne yooyu ma aas jox faw nga indi fi ma wan kon àddina bi. soppe yi gis ko parce que as may wax yow mi la loolu ma lay wax ne as euh, Leewtoo mii la réew mi yëpp di seetaan yàgg maara ngi nii mhm. maanee ngi nii Modou Maane Babacar a ngi nii mhm. as jox nga Babacar joxal ma euh, maar ak euh, yàgg ak maane ñaari pédale des as as vraiment ku baax la ku bëgg daal nag demal Colobane ci as VIP sop ak baax as VIP sop mun ndey Pa Moussa mhm. as vraiment dalu xale léegi day jaay dalu xale dalu mag dalu góor dalu jigéen mu ngi kolobaan robinet séréer ah, waaw léegi daal mooy sponsorisé chaque yow sa émission bi nga def. revue bi revue bi sa revue de l'arène. revue bi de l'arène à chaque vendredi wutal trois paires revue de l'arène revue de l'arène à chaque vendredi il faut ma donner trois paires pour Babacar. pour yàgguma et pour maane li a jërëjëf As léegi daa mel ni yàlla ñëw na alhamdulilah ci yow. Babacar yàlla ñëw na parce que nag kaay ñu bëri dama sot pour bëgg ma daanu du ma fen ñu bëri ñu ma jege woon mais na nañu xam ne yàlla ànd ak man te ku yàlla àndaat sampa yàlla kenn mënu ko simpi yàllaa ma samp kenn mënu simpi daanu moom da doot ma daanu to maa kii ci ña yàlla mu gën ma ci jàppale parce que Babacar yàlla ku mu àndal loolu doo daanu yëpp yàlla ku mu àndal ñëpp mën nañ la sot xeex la mais doo daanu doo laa suuf yàlla ma samp am xamuñu benn rek Gambie yooyu mais yàlla ma samp. abitu Gambie yi ngay wax. abitu Gambie yi xamuñu dara man maa ko wax. bu doon Dakar nu jox ma victoire bu yàgg li ñu jaan li mu def Gambie ñi mu koo def Dakar to bés bu nu rawaasee bu ko defee Dakar nu jox ko defee da ko ñu ma dama koy dàq dóor ko ba mu ne ñaar. liiru xanaa bu la invité ci tànn biir gi muy waaj a def pour fête drapeau di nga dem. tànn ki ñi may def tànn biir. Ah, naa ko kii mën yow kii kii ban réew la dëkk. Sénégal nga dëkk la dëkk. Sénégal du def loolu. ngeen bokkaat bawal ne neen altu ndàngal ma la dëkk. ku ku dëkk bawal doo daw bawal bawal du daw. Ah, liiru waa ndàngal ma la de. liiru drapeau Gambie la ko. yor fu fu mu aw ñu koy yuux na ko waaye yóbbu drapeau bi ci wul yi mais loolu képp doy na daaw na indi drapeau bi. ne ma yaa ko moom jëlal di gërëm ñi may jàppale Babacar Baye Sall Saalu Seen pikin la dëkk Baye Saalu Seen Jamil Sam di jaay zinu laa Jamil Sam doom yaay ja cuuna kan dafa baax Jamil Sam maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Tidiane Dabo borom maase asalem ak Diouf moom solal lii Diouf aussi maa lay xamal ne ñi aussi fa ngeen solal parce que nekk télé fa ngay solu Diouf moom moo def lii mu ngi maas asalem di gërëm Touré El Capo laay bu def di gërëm Saliou xule di gërëm Mamadou Ngom ñaa daas Mamadou Ngom ñaa ministre des sports séeri ab kan madame ñaa boroom Fatick Mamadou Ngom ñaa moo baax moo gore séeri ab kan di gërëm Matar Ba ministre des sports di gërëm Veuve Cissé di gërëm Nicolas Ba doomam di gërëm nag le king Karambooj xaay bu baree bëri la ma jàppale Karambooj rakki naar mbooj naar mbooj yaayu sëñ saaliw doomu ndey Abdoulaye May Sabara Dione Karambooj yaa baax yaa gore mbooj séeri faatu mbay saaliw ndiir paku la mbay aussi maa ngi koy gërëm bu baax jàpple na ma Saliou Ndiir Masila Diop sama sama sëriñ sëñ Mor Kéemaan sëñ Maam moo Jaañ jàpp nañu ma bu baax ba alhamdulilahi rabbi alamin waa Bawol waa Refan ñëpp meeru Refan bi ñoom ñëpp maa ngi di gërëm di gërëm ba ñoo bokk dëkk Babacar liiru nag ku mu ci tooñ rek woo man lay waate ku mu waxati Sénégal se se se se seytaan nga nee ko wulee gi ñëw de rek mu daaw fii mu toll dóore maanaam dóore bi ci yow la gën a wóore. wuli lay wuli lay dóor yi mu dóor dem. daa dóor Lamine. Lamine defu ko dara mais moom kii yow kii ci dóore ci toggee ba ngi daw waaye ki ragalut na ba booy mu dóor ci bu ñu ma keroog mu dóor ma ko ma naa dama ko dóor goos goos moo loxee ma fii su way xam yi mooy tapet amut loxo du door na ba booy mu dóor ci biti eh, Lamine ku ma fi doose rek woo ma ma réglé ko. kontaan ci yow. yaa baax yaa góore Babacar. kenn du yow l'international yaa boole international ca wuli wuli lu neex wala ko tuddee ki yaa fa sama xel sama la maam Roqia borom yoof ak a baax te bëgg lam yëpp la seetaan. maam Roqia ñu ngi lay. opéra bi ñëpp nag. Italie Espagne France ñëpp maa leen di sant di leen du mën a ñàkk yéen a baax yéen a góor. too léew too nag daan. yéen a leew tool yéen a daan calis fa yaa baax yaa gore ak grand frère am bi mu baaxee nan si la Ablaye si mu am jom nit ñi nga am jom ay di daw di daw